asalaamaaleykum mbokk déglukat yi docteur Bintou Cheikh Seck maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Rosalie. chronique numéro 308 docteur comme ni nga koy defee weer wu nekk da ngay tontu ay laaj yoo xam ne euh, jot nañu ko dugal ci suñu page Facebook. noonu la waaw suñu auditeurs yi dañuy dem ci page bi di ñu euh, di ñu laaj ay laaj yu bari d'ailleurs comme ni nga koy faral di defee rek dama ciy tànn yenn yi euh, ngir mën cee tontu ci antenne bi ñëpp dégg ko. dañuy tàmbalee laaju Abdou Salam nee na docteur est-ce que dëggantaan am na ay diwlin yoo xam ne amul cholestérol comme koy faralee di dégg ci yenn publicité yi. waaw alors aman à chaque fois ma dégg dégg gis ma liir loolu ma gis ko ci ci butéelu dëwlin dafa may xaw a euh, reetaanloo tuuti ndaxte euh, lenn moom xam nañ ko mooy euh, garab. mënul mënul euh, defar cholestérol maanaam garab yi nga xamante ne ñoo xam tournesol la ñoo xam olive la ñoo xam euh, ñoo xam gerte la ñoo xam euh, diwu tiir la garab boobu mënul defar cholestérol donc diwlin ba ci ba ciy jógee mënul am cholestérol donc mën nañu wax ne ni nit ñi kii ñiy defar diwlin bi bu ñu nee lii diwlin bi amul cholestérol maanaam marketing la dafa ñu bëgg rek ñu gën a mën a jënd gën a jënd seen seen diwlin waaye amul benn diwlin bu mën a am cholestérol do cholestérol fi muy nekk mooy foo xamante ne ci mala la jógee maanaam donc bu ñu jëlee boo ko jël beurre jël crème wala mbay mayonnaise yooyu yëpp ci mala lañ jógee donc euh, euh, dina am cholestérol mais diwlin mënul am cholestérol. ñu jàll ci laaju boobu nee na docteur est-ce que ku am feebaru diabète mën na woor su fekkente ne mën na nekk lan la alimentation war a tëddee. waaw bii moom dama bëgg tontu bi leer nañ euh, gis nga docteur yi ak. ci argument scientifique yi ci àddina wërngal këpp ñoom dañoo jàpp ni ku am diabète warul woor ku am diabète warul woor waaye dañu dem ba ci biir ñu gis ne nii diabétique yi même bu ñu leen tere woor li ci ëpp dañuy woor quand même euh, su ko defee nag ñooñu docteur ak yooyu yéen ñoom seen dañoo ñu dañu toog comme ñoom dañuy woor tere nañ nañ ko dañu seet ci anam yan lañu mën a wooree te duñu gaañ seen bopp euh, moo tax euh, du dama koy wax di ko waxaat képp koo xamante ne am nga diabète balaa ngay tàmbalee woor da ngay dem ci sa docteur bi xam sa dossier mu saytu la xool lépp ci yow wax la ndax mën nga woor am déet léegi nag bu dee mën nga woor Euh, nañ jàpp ni euh, xëdd bi ma tegtal ak ndogu bi ma tegtal mi nga xamante ne amuñu jabet noonu la diabétique yi war a lekkee damay wax toujours que régime u diabétique amul foofu ñëpp comme ku mel ni ku am jabet la ñu a lekkee ndaxte mooy ñam boo xam ne euh, dañ def dañ ko yemale c'est équilibré lenn ci li nga xamante ne poñ bi nga xam ne dama ci dellu si mooy ne ki am jabet moom par contre moom dañ dañ may dégg ma naan dañu war a wàññi suukar ki am jabet moom kooku dafa war a bàyyi suukar bépp suukar bu ñuy dolli ci ñam yi notamment suukar bi ñuy def ci jus ak yooyu euh, ak bisaab bi ñuy ta bi ñuy faral di naan ci ci weeru koor gi yooyu yëpp daf ko war a bàyyi moom. laaj bi ci topp mooy bu Boubacar nee na docteur man dama am hypertension waaye dama bëgg lool kafe Touba lan nga may tegtal. waaw mu doon kafe Touba wala café beneen bi. Uh, amul benn jeexital bu muy indi ci tension di ñu gis mooy ki nga xam ne dafa naan café wala café Touba euh, tension bi dina xaw a yéeg tuuti ci waxtu bi ci topp après mu wàccaat donc du indi benn uh, ni li muy naan ci kafe Touba dafa bari ci bés bi war naa fexe ba bu koy naan bañ ci def suukar ndaxte booba euh, dina wàññi suukar bu bari par kon bu fekkee day naan kaas yu bari café Touba ci bés bi à chaque fois suukar ko bon bu boobaa suukaram day day day bari. ñu jeexalee laaju Bamsa nee na euh, dafa bëggoon xam ndax euh, di consommer sucre roux suukar bu ñuy wax sucre ru moo gën a baax yeneen suukar yi ngir moytu excès de sucre ci suñu yaram. suukar bu roux bi maanaam suukar la boo xam ne dafa xaw a marron te ñu bari dañ jàpp ni euh, moo gën suukar bu weex bi euh, te dañ may laaj laaj boobu lu ay yoon yoon euh, ma bëgg mu leer su suukar bu marron boobu ak suukar bu weex bi ñoom ñaar ñoo yem kepp ci yaram bi bu ñu ko lekkee suñu yaram daal li muy xam mooy ne li muy jàpp ni mooy lekk lekk nañu suukar mu def li mu war a def pour mën a traiter suukar boobu euh, benn ponk rek moo wuutale sucre suukar bu marron bi ak suukar bu weex bi mooy ne ci suukar bu marron bi dafa am li li ko maron wal benn kii la benn élément bu tudd mélasse moom moo ci nekk ba nga xam ne dafay marron bu bu fekkee bu weex la mélange boobu dañ ko dindi Euh, loolu rek moo tax euh, moo tax nag may wax ñëpp ñi nga xam ne dañuy dem dépenser xaalis bu bari ndax sucre sucre bu manon boobu bu ruu bi dafa cher euh, bi lay nañu économiser seen xaalis boobu ñu def ko feneen ci jënd ay légumes par exemple et jàpp rek ñaari sucre yëpp benn la ñoom ñaar ñëpp la ñu war a yemale. nga fàttali suñu page Facebook. mooy Sud Nutrition rek ngeen def comme suñu auditeur du jour yi tey di Abdou Salam di Bobo Boubacar ak Vansa ngeen laaj ñu seen i laaj boo leen amee ay thème sujet yoo leen bëgg ñu waxtaanee ci Sud Nutrition wax ñu ko ni am na ay chronique vidéo ak audio yu ñu posté ci page bi. may gërëm Val d'Afrique di la jaajëfal docteur Bintou Cheikh Seck. maa ngi lay jaajëfal Rosalie. ngir seetal seen i loxo jëfandiku leen gel main Valda Val d'Afrique. moo leen doon may Sud Nutrition. Le gel main Valdin, efficace sur 99% des microbes. Val d'Afrique vous offre Sud Nutrition. Bonjour chers auditeurs, docteur Bintou Charsek, bonjour. Bonjour Rosalie. Chronique numéro Docteur, comme tous les mois, vous allez répondre aux questions que nos auditeurs vous ont posées sur la page Facebook. Mais tout à fait Rosalie. Euh, nos auditeurs nous posent beaucoup de questions sur la page sur nutrition et j'en ai choisi quelques-unes auxquelles je vais répondre à, l'antenne. On commence par la question d'Abdou Docteur, y a-t-il vraiment des huiles sans cholestérol comme on l'entend que je parce que il se trouve que les plantes dont, dont sont extraites les euh, l'huile ne peuvent pas fabriquer de cholestérol. Donc en fait, une huile est naturellement sans cholestérol. Le mentionner sur l'emballage, et c'est une tactique, on dirait, on, on dirait une, une, tactique marketing, euh, parce que le cholestérol n'existe que dans les aliments d'origine animale, ou euh, comme le, le, beurre, la crème, la mayonnaise, qui sont donc des matières grasses ajoutées, comme l'huile. On passe à la question de Bobo. Est-ce qu'un diabétique peut jeûner? Si oui, quelle doit être son alimentation? Alors, il faut être très clair sur cette question. euh, le consensus scientifique et mondial est qu'un diabétique ne doit pas jeûner à cause de tous les risques qu'il encourt. Cependant, voyons que euh, malgré ce conseil, malgré cette réalité, la plupart des diabétiques jeunes, des médecins, des scientifiques ont décidé de, de définir, au moins de définir des critères d'après lesquels un diabétique peut jeûner ou ne pas jeûner d'ailleurs. Donc, euh, on ne le dira jamais assez, il faut impérativement recueillir l'avis de son médecin dans nos chroniques précédentes s'applique aussi bien euh, aux non-diabétiques qu'aux diabétiques. La question suivante est celle de Boubacar. Docteur, je suis hypertendu et j'aime beaucoup le café Touba. Que me conseillez-vous? Alors, le café Touba, comme le café classique, n'a pas d'incidence sur la tension artérielle. On sait que la consommation de café, que ce soit café Touba ou l'autre, peut élever la tension artérielle, mais de manière transitoire, cest café. Et ça, c'est pour éviter, bien évidemment, l'excès de sucre. Et on termine avec la question de Bamsa. Docteur, je demande si la consommation de sucre roux est plus bénéfique pour éviter l'excès de sucre dans l'organisme. Eh bien, c'est une question là aussi qui revient très souvent. Le sucre roux et le sucre blanc sont exactement pareils pour l'organisme. C'est du sucre, c'est tout. La seule différence entre le, le, sucre roux et le sucre blanc, c'est que le sucre Et le sucre blanc est débarrassé de sa mélasse, c'est pour ça qu'il est blanc. Euh, donc je conseille vivement à nos auditeurs de ne pas dépenser des sommes euh, euh parce que le sucre roux coûte infiniment plus cher que le sucre blanc. Pour acheter du sucre roux, euh, il faut juste limiter le sucre en général, qu'il soit blanc, roux ou que ce soit du miel d'ailleurs. C'est Sud Nutrition, en fait comme nos auditeurs du jour, Abdou Bobo, Boubaka et Bansa. a des Merci à Val d'Afrique et à vous, docteur Bintou Chersek. Je vous remercie, Rosalie. Le gel main efficace sur des microbes. Val vous a offert Sud Nutrition.